vidéo bi circulé jamono ji ci internet bi ñu ciy fësal ab ASP maanaam ab takk der boo xam ne day néewal doole ab handicapé boo xam ne ni soxla la toog ci fauteuil roulant wam loolu le nag def tuuru web bi ba tax na ñenn ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitee kuréel lu way handicapé yi nekkee ci dëkk bu sell bi ci Touba di yëkkati seen kàddu Serigne wu Ndiaye di wax ni lii li nguur gu Sénégal war na ci jël ay matukaay wala ñoom daañu def seen kémt lay kàttan ba dakkal lu ni mel xam nga jëf ju ñaaw joo xam ni yaakaar naa bettul kenn parce que fii lañ doon séntu ndax problème yi yàgg na bëri yàgg nañ dund lu mel nii également bu ñu demee nag ba ñuy jàpp handicapé yi di leen dóor yaakaar naa yooyu loolu lañ leen deseloon euh, damay interpréter directement état bu Sénégal ñu jël seen i responsabilité jël seeni matuwaay encore lu mel ni bu amatee danañ gis leneen lu bokkut ak lii am gis nañ nag la xew Dakar tey parce que mënoo dóor nit ki ba pare jàpp ay naataangoom dugal ci biir kaso bi tey ñoom ñëpp ci lañ xëyoon parce que man dama nekkoon ci activité mais dama waroon dem Dakar nga xam ne moo ci sama devoir en tant que kilifa. Euh, dama dama lay wax soxna si gis nga fi may waxee ak yow nii Sénégal pour yi manqué nañ fi kenn gisatu leen ci réew mi dañuy daw di génn période élection bu ñëwee dañuy daw génn réew mi parce que bu ñu toogee ci réew mi ñu sacrifié leen handicap yi ñu bëri bëri ñu ngi def ci ñoom ay sacrifice te kenn waxul loolu te loolu dañ ci war a wax ah période bi bu ñëwee handicap yi dañuy tiit ñi ci am ay njaboot dañu leen di téye lu ko may danañ jël seen i ñu sac def ci ñoom ay sacrifice période élection bu ñëwee da ngay gis handicap yoo xam ni soit moo nekk ay poni wala mu nekk ay yeneen façon handicap dootu leen gisat doo xam fu ñu leen dugal te loolu réew Sénégal la rek ñooy def loolu te handicap bi ku ci amul mbokk am nga ci ndey ku ci amul ndey am nga ci bàyyi wala nga am ci mbokk autorités yi ñoo ci war a jóg jël seen i responsabilité encadré handicap yi jàppale leen li war seen diggante ak ñoom ñëpp ñu def ko mais defuñu ko maa ngi lance appel na kilifa diine yi ñu wax ci lu mel nii xam nga image bi boo ko dafa ñaaw am naa ci appel yu bari bari surtout nag diaspora bi ñoom maa ngi leen sant baax di leen gërëm ci vraiment yëg gi ak métti lu mbir mi ndax surtout jigéen nga jàpp di dóor di weq xam nga mel ni góor loolu lu ko gën a ñaaw am na mais ki def lii war nañ jël ci war nañ ci jël ay responsabilité xool moom dañ ko war a dàq sax parce que du nitub dara du nit ko baax kii bu ñu sax def ni yaayam est-ce que def ko yaayam sax te bu ñu toppee ba ci biir boo boo xoolee def na ko yaayam parce que nit warul man def sax yenn jëf yu ñaaw yi jàpp di dóor ba max mu daanu nga sànni futaru lamb en tant que jullit ci réew mu mel ni Sénégal surtout weeru koor yi ñu nekk ngay def jëf yi bàyyi ma yi jëf yi yi li baaxul moom Serigne Saliou Ndiaye fësal ne nguurug Sénégal daanaka daa ñàkk considération jëm ci ñoom handicapé yi moo tax ñenn ci askan wi ñemeel leen lu ni mel di joxe firnde ci carte égalité des chance yi nga xam ne nii ab la bu nguurug Sénégal jógoon jëmale ko ci handicapé yi. mais xam nga mooy manque de bi nga xam ne état bu Sénégal daf ko def ci handicapé yi euh, li leen war euh, seen diggante ak handicapé boo amoon lii du am. mais manque de considération bi moom la am te surtout nag état bu Sénégal ñoom ñoo jëlu seen responsabilité euh, ci handicap yi amul benn engagement boo xam ne jël nañ ko ci surtout maa ngi wax jamono yi paase yëpp ci problème carte d'égalité des chances yi euh, bi ñu fan yi paase yàggul gis nañu conseil interministériel bi nga xam ne am na conseil interministériel bi nga xam ne am na fan yi paase ba ñu ñi dañuy jagleel handicap yi lu toll ci 40 milliards xam nga ne loolu c'est faux parce que la ma ci waxoon au début ba ma ko déggee def naa déclaration directement wax ni lii c'est faux dañuy nax handicapés yi xaj na dañu bëgg budget boo xam moom lañu bëgg campagne élection 2019 mais handicapés yi moom amuñu yaakaar ci ñoom ni jàpp nañ ni danañ wote i nga kii moom waxuma la leen waaye réew mi sax waratu fi nekk dañ ko war a jàpp tëj ci kasa mais nag Sénégal surtout mu Macky Sall mi fii ñu toll nii def fi lu mel noonu da koy def ba pare génn dem dox sa soxla gis nañ fi ñu faat fi ay bakkan nit dóor nañ fi handicapé Kaolack euh, ci lu mois bi passé ba mu ñàkk bakkanam ñu jàpp kilifa yoo xam ne dañu jàpp handicapé di leen tëddee loolu bari na ci réew mi bari na ci ñoo xam ne fi doon i doom mais kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo leen def loolu tey bu doon da nga jóg uniquement pour jël li en tant que seen kilifa seen i parents ñoom ñooy fexe ba négocier mbir ñu ko mais dañ ci war jël suñu ñu war lépp ñu def ko loolu nag incha allah à partir d'aujourd'hui sëñ Saliou loo xam ne amata na dana ko déployer ñi a yëg euh, li ñu war a wax xam nga yàgg nañ di wax mais Sénégal mooy réew moo xam ni yaakaar naa ma benn kilifa bi moo doon fi xarum laadum sax moo fi ëpp importance doon fi handicap ndax amuñ ci amuñ ci ñoom considération c'est vrai loolu moom gis nga li tey bu doon dafa xew bitim euh, lay doon parce que ñoom dañu am considération ci handicap bi ñun euh, nag président Yatma Fall président national mbir mi am na bopp ba léegi dégguñ ko même bu ko fekkee mu nekk bitim réew waroon na réagir mais nag euh, xam nañ ni dafa jege état parce que mbiru politique moo waral lii bu ñu fàtte nekk conseil économique la au conseil la bu ñu fàtte ne au conseil la loolu moo lii dafa jege état Mm, responsabilité yi mu war a jël ak li mu war a wax daf ko waxul te it comme mooy nekk président national moom la fi yàlla teg waroon nay lu mel ni bu amee daf ci wax parce que en 2011 lii am na fi te daf ma fekk à Paris te dama def déclaration directement wax ci la ma a wax jël ci li mu war a def ci handicap yi dafa bari te def ko carte yi dama ci wax ba sonn 50 000 cartes yi ñuy wax ñoom di ko politiquer ni jox nañ ko handicapé carte yi c'est faux dara baaxu ci keroog bi président dafay journée de lancement bi laa génn wax directement ci benn télévision ni dafay nax handicapé yi yaakaar naa ne président de la république warul jóg pour nax handicapé carte yi baaxul dara nekku ci amuluñu benn njëriñ amaluñu ko 50 000 cartes yi benn njëriñ qualité bi aussi baaxul liñ ci war a def liñ ci war a ci ay milliards duñ ko ci def kon mënoo euh, jàpp ni ñoom danañ amal handicapé benn njëriñ loolu mooy problème bi suñu centre bi nga xam mooy centre national président Abdoulaye Wade moo ko defoon centre bi indigré nañ ko 2013 ba léegi centre amul benn njëriñ kon taxawaay bi nga xam ne moom la réewu Sénégal war a am ci la personne handicap amu ko ci bu fekkee dëgg rek la yàlla